الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار واحرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرحمة alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa mbokk jullit yi ñi ngi sant borom bi subhanahu wa euh, di seede ne moom kese lañ war a jaamu moom rek moo yeeyoo ñu jaamu ko di seede ne muhammad jaamu bi yàlla la ndawam la moom mooy tànneefam itam ci mbindeef yi borom bi subhanahu wa taala yaa ko mu nekk yërmande mbindeef yépp Euh, yal na ko yàlla yokk xéewal moom ak i saxaabaam ak ñu topp ci ginnaawam ila yawmil qiyaama ginnaaw loolu mbokk yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal boroom bi subhaanahu wa taala borom bi nee na wattaqoo yawman turjauna fihi ila allah na ngeen tiit ragal yéen ñëpp bis boo xamante ne yéen ñëpp dinañ leen delloo ci seen borom te ku ci nekk danañ la fay la nga xamante ne moom ngeen doon def mbokk jullit yi ku nekk ci àdduna bokk ni say mébét li ngay mébét mooy nga am xel mu dal nga am dënn bu yaatu nga bañ a tiit bañ a jàq bañ a am dara loo xamante ne day naqari sa xol wala mu di ko xatal loolu nag ñu ci nekk am na nuñ koy wutee sabab yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ci jaaree wala yoon yoo xam ne buñ ci jaaree dinañ am yaatug dënn googu dinañ am xel mu dal moomu waaye nag bu ñu delloo ci alquran ak sunna xool ca foofu la ñuy gisee njub gi nga xamante ne mooy yoon wi nga xam ne ku ca jaar dinga mën a am loolu nga xamante ne mooy yaatug dënn ak xel mu dal mbokk yi bokk na ci sabab yi indi nit ki am ubbeeku dënn ak yaatu xol yooye bokk na ci at tawxiit mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala kem ni nit ki di wéetale borom bi subhaanahu wa taala kem ni nga xamante ne noonu la tawxid di mate ci xolam ak ni muy dëgëree ci xolam noonu la xolam di yaatoo noonu la xelam di eh, dale borom bi subhanahu wa taala moo ko wax ci alquran ne afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbi ki nga xamante ne yàlla moo yaatal xolam dugal ci li nga xamante ne mooy loorug leerug lislaam kooku mooy ki nga xamante ne moo nekk ci leer dëgg kooku du jaaxle du tiit du jàq itam kon eh, li nga xam ne mooy njubug borom bi subhanahu wa ak wéetal borom bi subhanahu wa taala bu feesee ci xolub jaam bi xol boobu dafa yaatu xel moomu dafay dafay dal kooku du nekkati koo xamante ne dafay jaaxle waaye nit ki nag safaan ba bu fekkente ne xolam bokkaale daf caa fees réer fees ca kooku fu mu toll ci tiit lay nekk ak jaaxle fu mu toll rek yaa ngi koy gis muy daw di jéem a ut lu muy féexale xolam bu teyee ma nga dem ca njabarkat ya bu taree ma nga dem ca mooy yàlla yene dafay féexale xolam bu demee sax léeg-léeg muy dem bay jëfandikoo ay mbir yu bon yoo xamante ni dañ ko aaye parce que féexu xol la bëgg te xamut ne xolam mënta féex mukk li feeg ne xol booba bokkaale yàlla ma nga cay nekk tawxid nekku ca boobaa xol boobu foo ko fekk dafay xat xol boobu foo ko fekk day naqari ak lu mu mën a am ci àdduna du mën a am li nga xamante ne moom mooy bonheur du mën a am li nga xamante ne moom mooy bànneex kon tawxiid mbokk yi lu am am solo la mbokk yi bokk na ci liy waral itam eh, xel mu dal ak dënn bu yaatu mooy leer goo xamante ne yàlla da koy sànni ci xolob jaam te leer googu mooy leeru ngëm yàlla ngëm yàlla dafa am leer gu muy àndal goo xamante ne bu duggee ci xolub jaam bi rek xol boobu dafay yaatu xol boobu dafay nekk xol bu bëgg waaye bu fekkente ne leer googu nekku ca lëndëm moo nekk ca xol ba boobaa xol boobu dafay xat xol boobu day mel ne nit ki liberté sax dañ ko ko xañ day mel ne ku nekk ci prison ndax leer googu moom la ñàkk borom bi subhanahu wa taala nee na aw man kaana maytan fa naa wa naa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama masaluhu fi dhulumaat laysa bi xaarijin minha ñoom ñaar mënuñoo yem ki nga xamante ne nii yàlla defal na ko leer ci xolam ba mu xam fi muy jaar mënta bokk ki nga xamante ne amut leer googu day tëñaxu fu nekk fu nekk mu tàbbi fa ñaar ñooñu mënuñoo bokk te ki nga xam ne moo am leer nag mën a xam fi muy jaar mooy ki nga xamante ne nii euh, euh, am na ngëm yàlla leeru ngëm yàlla dugg na ci xolam mbokk yi bokk na ci itam liy indil xel mu dal di yaatal ab dënn mooy xam-xam nit ki bu amee xam-xam dënnam dafa yaatu dënn bi day yaatu ba gën a yaatu àdduna waaye nit ki bu réeree loolu day xatal ab xolam fu mu toll mi ngi nekk ci ay naqar dara mënu koo bégloo bu fekkente ni amul xam-xam waaye ban xam-xam lañ ci jublu mooy xam-xam bi nga xamante ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi bàyyi woon mu nekk ndonoom loolu mooy xam diine xam li nga séq sa borom xam li nga séq ak say morom loolu xam-xam boobu mooy xam-xam bi am njariñ xam-xam bi nga xamante ne mooy yaatal xolub euh, jaam bi mooy rafetal ay jikkoom mooy tax itam mu mën a dund dund bu tranquille dund boo xamante ne bu dal lay doon mbokk yi bokk na ci liy yaatal dënnu jaam bi itam mooy muy dellu ci borom bi subhaanahu wa taala di tuub ba noppi itam xolam mbëggeelu borom bi subhaanahu wa taala nekk ci jublu itam ci boromam di xewlu ci jaamu yàlla yi muy jaamu yàlla nga xam ne buy taxawee jàkkaarloog boromam di jaamu yàlla bu boobaa dafa yëg xéewal ci xolam loolu mooy li nga xamante ne nii day tax nit ki euh, am xel mu dal kon mbokk yi mbëggeel gi nit ki di bëgg borom bi subhanahu wa taala dafa am jeexinteel bu yéemu boo xamante ne da koy def ci euh, xolu nit ki nit ki lu mbëggeelam ci borom bi subhanahu wa taala gën a euh, dëgër gën a tar ci la dënnam di gën a yaatu ci la xelam itam di gën a dal waaye mbokk yi bokk na ci li nga xamante ne day xatal ab xol mooy nit ki dëddu boromam dëddu boromam du taxawee jàmm yàlla yi du tudd boroomam du jàng alxuraan fu mu toll rek mu ngi nekk ci ay fo ak i caaxaan ak mbiri àdduna loolu dina indil nit ki euh, xataayu xol bokk na ci liy indil nit ki xataayu xol itam mooy mu jël ay mbiram wékk ko ci leneen wala ci keneen ku dul borom bi subxanahu wa taala borom bi. koo wékk say mbir rek mu bàyyi la kooka da ngeen di ànd di jeex-jeexi ba daanu rek ndax attanul mbiri boppam bay attan say mbir borom bi subhanahu wa taala rek moo am kàttan koo xam ne ku wekku wekk say mbir ci moom bu boobaa wekku nga wéeru nga foo xamante ne fu dëgër la waaye lépp loo wéeru ci lu dul borom bi subhanahu wa taala rek loolu dina la mas mbas nga daanu bu boobaa dund mu naqari rek moom nga ciy jëlee moo tax képp koo xamante ne bëgg nga leneen lu dul yàlla borom bi subxanahu wa taala dina la mbugal ca loolee nga bëgg dina la mbugal ci loolee nga nga bëgg euh, bu fekkente ne jigéen la wala euh, star la wala lu mën di doon yàlla dina la mbugal ci moom ba nga foo toll ngay yëg naqar woo xamante ne doo ci mën dara waaye nit ki bu fekkente ne mbëggeel gi mu bëgg borom bi subxanahu wa taala moom la teg ca ca kaw bu boobaa bànneex la yëg ci xolam kon euh, bëgg borom bi subxanahu wa taala. bokk na ci liy dundal xol liy indi mbégte ci xolu euh, doomu doomu aadama mbokk yi bokk na ci liy yaatal dënn yi itam di dalal am xel mooy sax ci tudd borom bi subxanahu wa ci waxtu wu nit ki mën a nekk rek muy tudd borom bi subxanahu wa taala waxtu wu mu nekk ak anam mu nekkee ak barab bu mu nekk rek muy tudd borom bi subxanahu wa taala loolu itam am na jeexintal bu yéeme. boo xamante ne dina ko def ci xolu nit ki ndax borom bi moo ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nee na liy dalal xol yi mooy ñuy tudd borom bi subhanahu wa taala waaye ku fàtte borom bi subhanahu wa taala dëdd ko boobaa xol bu naqari rek moom ngay am te li gën a rëy nag ci tudd borom bi subhanahu wa taala mooy ngay jàng téeréem bi nga xamante ne mooy alquranul karim mbokk yi bokk na ci liy indi xel mu dal di indi dund bu neex mooy ngay rafetal nag jëm ci mbindeef yi mooy ngay def lu baax jëmee ko ci mbindeef yi moo xam li nga am la ci sa alal wala sa daraja wala sax loo leen mën a jariñ ci sa kàttan kàttanu yaram wala bépp xeet rafetal ak lu baax loo mën a def jëme ci nit ñi loolu dana tax nit ki eh, def lu baax loolu muy def dina ko indil xol boo xamante ne bu yaatu lay doon xol bu ubbeeku lay doon kooku foo ko fekk day nekk nit koo xamante ne kuy bëgg lay doon kuy kontaan lay doon ndax lu rafet li nga xamante ne moom lay def jëmale ci nit ñi waaye ki nga xamante ne dafa nekk ku nay euh, du dimbali doomu aadama yi kooku foog fekk itam xol bu xat lay amee kooku fekk itam ci jaaxle lay euh, euh, dund ndax toujours mi ngi nekk ci tiit kon joxe ak di dimbali doomu aadama yi loolu day yaatal xolu doomu aadama comme ni nga xam noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxee ci benn misaal naka noonu itam nay dafay euh, euh, xatal xolu doomu aadama mais nee na mi ngi mel ne ki nga xamante ne dafay sol am mbubb mbubbum weñ nee na ki nga xamante ne moom day joxe buy sol mbubb ma saay fu mu laal rek mbubb ma yaatu ba mën a dugg ba sol ko ba nga xamante ne dafay matale waaye ki nay nag moom day jéem a sol mbubb mi fu mu laal rek dafay xat ba nga xamante ne mbubb mi daf koy xoj yam ci baat bi du mën a du mën a du mën a jàll noonu la euh, xolub ki nga xamante ne day joxe mel ak xolub ki nga xamante ne dafa dafa nay mbokk yi bokk na itam ci li yaatal euh, euh, xol di delal am xel mooy nit ki am ak njàmbaare ci dënnam loolu itam dafay yaatal ab xol ki nga xamante ne dafa ragal dafa ragal ragal bu ñu ko waxee nag jubluwuñ ci ragal goo xamante ne ragal naturel la goo xamante ne da ngaa gis loo ragal daw ko waaye ragal goo xamante ne daf lay yóbbu ci nga ragal leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala wala ngay ragal mbir yi ragal goo xamante ne ragalu biir la loolu day tax nit ki xolam di di xat fu mu toll euh, euh, kon mbokk yi loolu bokk na ci li nga xamante ne day euh, yaatal xol mooy nit ki amul njàmbaare ci xolam bokk na ci li yaatal xol itam mbokk yi mooy nit ki jéem a dindi ci biir xolam melokaan yu ñaaw yi nga xamante ne daf ciy nekk ndax melokaan yu ñaaw yi bu tasoo tasee ci xolu jaam bi xol boobu day mujj xat xol boobu day mujj ñuul xol boobu foo ko fekk ci naqar lay lay lay dunde te mbokk yi bokk na ci melokaan yu ñaaw yooyu benn melokaan boo xamante ni siiw na lool tasaaroo na lool tasaaroo sax ci biir ay mbokk yoo xamante ne ñoo bokk jubluwaay ñoo bokk lépp te loolu mooy suu zan mooy ñaaw njortu ci nit ñi mooy nga gis benn mbir boo xamante ne mën nga koo utal ñaari interprétation bu baax ak bu bon nga dem tànn bu bon ba bàyyi fa bu baax ba ci sa mbokkum julit loo xamante ne def na ko loolu ñaaw njortu la te borom bi subhanahu wa taala daf ñu ko aaye borom bi subhanahu wa taala nee na yaa ayuha ci amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ism mooy tundiku leen lu baree bari ci ñaaw njortu yi ndax yenn ñaaw yi loolu bakkaar lay doon mbokk yi la plupart da nga dégg nit ñuy wax di interpréter eh, ay jëf yoo xam ne seen mbokk jullit ñu ngi koy def wala taxawaay yoo xam ne seen mbokk jullit ñu ngi koy def rawatina bu ajoo ci borom xam-xam yi rawatina bu ajoo ci kilifa yi foofu la ñu war a doxal suñ biir mooy rafet njort ci ñoom lépp loo xamante ne jàpp nañ ko suñ bopp ci lu baax nañu jàpp ne ñoom ñooñu ca raw ñu ca jiitu au que nag ngay dem bay toog di leen tuumaal ci seeni eh, taxawaay wala ci loo xamante ne ci ay njort dong nga ko sukkandiku loolu lu bon a bon la loo xamante ne jullit bu nekk war na ko moytandiku war naa rafet jul eh, njort ci mbokk jullitam bu ne rawatin nag mu rafet njort ci ay kilifaam rafet njort ci ñi nga xamante ne ñooy ay borom xam-xamam rafet njort ci ñi nga xamante ne ñooy wootekat yi ci yoon yàlla jàpp ne la ñu nekk lu baax la lu mu gis ci ñoom lu safaanoo mu jéem leen a laabiré ca anam ba mu ko mën a laabiré waaye toog di wax rek ak di tuumaalaate loolu lu bon la loo xamante ne jullit bu nekk war na koo ko ndax bokk na ci li nga xam ne day taqal xol te bàkkaar yooyu nga xamante ne mooy nekk ci xol mooy bàkkaar yi gën a bon moo gën a yées sax njaaloo ak sàcc ak yeneen yi nga xam ne parce que yooya boo ko tuubee borom bi subxanahu wa taala euh, jéggal la ko léeg-léeg nga def yeneen yu baax yoo xamante ne moom moo koy effacé. léeg-léeg ay musiba dal la yooya daal di koy effacer waaye nag yi nga xam ne dafay sax ci xol bi yooyu day yàgg continuer continuer ba mujj nekk jig ko ci nit ki ba nga xamante ne fu mu toll rek dafay ñaaw njort ci mbokki euh, euh, jullitam fu mu toll rek dafay soxare mbokki jullitam loolu nag bokk na ci li nga xamante ne day ñaawal ab xol te am na benn borom xam-xam boo xamante ne nee na képp koo gis mu ñaaw njort ci mbokki jullitam toujours fu mu bëgg fu fu mu nekk di wër seeni ayib xamal ne kooka ku bon la ci biiram euh, maanaam la mu ëmb nekkut lu baax waaye jullit dëgg boo xamante ne li nga ëmb ci sa xol lu baax la foo toll yaa ngi utal sa mbokki jullit ay ngànt loo gis ci ñoom ñu def ko loo xamante ne yaa ngi werante lii baax na ak baaxut da ngay rafet njort rekk ne lu baax la jàpp ne rek même bu fekkee la nga jàpp ne lu bon la itam nga jàpp ne am na sabab boo xamante ne moom moo ko waral loolu nag ki ko mën a am mooy ki nga xamante ne xolam set na wicc biiram set na wicc kooku mooy ki nga xamante ne moo man euh, loolu mbokk jullit yi yii ñu tudd yépp lenn la ci ay mbir yoo xamante ne bu ko jaam bi dee yittewoo dina tax li nga xamante ne mooy xelam ak xolam nekk loo xamante ne nii lu set la nekk koo xamante ne day am dalu xel day mën a dund dund bu neex bariwaane nit ku nekk ci bitti am liberté te fekk na xolam moom ma nga mel ne loo xam dafa nekk ci euh, euh, sij na nekk loo xam lu ñu tëj la fu mu toll xolam mi ngi naqari mi ngi tàng te loolu kenn tegu ko ko moom moo ko teg euh, boppam mbir yii nag bu ko nit ki dee yittewoo incha allahu taala xolam dana nekk loo xamante ne lu yaatu lay doon ala wa sallu wa sallimu ala xaatami rasulillah محمد بن عبد الله فقد أمرتم بذلك في كتاب الله حيث قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa anna maahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya xayra man tajawaza wa afa allahuma aiz alislam walmuslimin allahuma aiz alislam walmuslimin allahuma aiz alislam walmuslimin واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيدهم بالحق وهيئ لهم بطانة الصالحة ووفقهم لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقطك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة أسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء الله ينصب وجهه